inna anzalnaahu ñetti yoon qul huwa allahu ahad ñetti yoon qul auzu bi rabbil falax ñetti yoon qul auzu bi rabbin naas ñetti yoon yàlla dana ko tabaxal ci àjjana juróom-ñaar fukki dëkk yoo xam ni bu ci nekk junniy pale lay am pale bu ca nekk dina am junniy néeg yoo xamante ni urus lañ koy defaree ak xaalis te néeg bu ci nekk dina am junni lal lal bu ci nekk dina am junni soxna mbokk yi ku ci bëgg yeneen ni leer nga dellu ci Xóoratul Ayni bu Sëriñ Suhaybu Mbàkke page 149 ngeen jot suñu vidéo réew mi wala si biti réew ngeen mën a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal nañ ko a xam li nga xam